salaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam euh, di ko gërëm di ko sant suroom suma sagoo jox kenn ku nekk ci yéen tamit loxo euh, gërëm ko sant ko ma bëgg tamit mu jàpp ni vidéo bi euh, naan vidéo boo xam ne danga ko yónni ci groupe wante ni ma bëgg ko koy seetaan jàppee ko mooy na jàpp ni moom xam jot naa wax ak ñoom yoo xam ne jot naa yónnante ñoom message euh, wante mënuma tontu ñëpp euh, moo tax may def vidéo bi di ci jégalu nag di leen sant di li euh, ngeen ma defal mënuma ko defal suma bopp ñaan ma defal mënuma ko defal suma bopp te bii gën ci ñaan mooy ñaan yoo xam ne làmmiñ beneen moo koy tudd jëmale ko ci borom bi Euh, ñaan yooyu la suñu borom digg la gaaw nangu moo taxit suñu borom dégg na seen ñaan nangu na seen ñaan ba euh, yàggul dara xibaar nañ ma ni testé nañ ma encore plusieurs fois test yëpp négatif euh, mën naa génn dem fekk suma njaboot incha allah kon nag maa def video wax leen tiis ak natt joo xam ne suñu borom tegoon na ma ko moo war a def ak vidéo sant leen gërëm leen. xamal leen ni seen ñaan suñu borom nangu na ko maa ngi leen di sant bu baax suma waa kër suma njaboot ñëpp a ngi leen di sant maa ngi euh, gërëm euh, kilifa yëpp kilifa diine yoo xam ne euh, ñaanal nañ ma jàppale nañ ma muy kilifa diine ak aada kilifa diine jullit ak chrétien kilifa aada yi kilifa politique yi tamit autorité yëpp di jiital chef de l'état Euh, di ko sant euh, di ko gërëm ci initiative yoo xam ne jël na ko pour que réew mi yëpp nekk benn ñëpp ànd xeex Covid 19 bi di sant tamit autorité politique yëpp yoo xam ne nekk ci opposition yi nekk ci nguur ak société civile ñëpp euh, di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mu bëgg nag beral ay nuyoo jëmale ko ci ministre bi ministre de la santé ak autorité sanitaire ak personnel soignant bi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu. Euh, ñu ngi taxaw Sénégalais yi baax a baax a baax ñu ngi taxaw patients bu baax a baax baax a baax ñu jar a jàppale li ñu jar a soutenir la maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di beral tamit ay nuyoo sumay mbokk kii di leen sant di leen gërëm di leen sant leen gërëm euh, xam naa ni jaaxle woon nañu lool lool lool lool lool wante alhamdulilah rabbil alamin ñaanu réew mi ak seen ñaan yàlla nag na ko maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax kon nag vidéo sant rek la vidéo gërëmante rek la Euh, bëgg nag jeexale vidéo bi ci suma engagement continuer xeex bi contre le Covid 19 di encourager tamit autorités yi euh, pour ñu gën a mën anticiper ci crise bi crise sanitaire la dëgg la wante am na crise économique boo xam ne mi ngi euh, ci ginnaawam kooku baax na ñu mobiliser wu généralement nag mel nii ñëppay mobiliser wu di xeex bañ nag xalaat sortie de crise te day baax ñu mën anticiper mooy chef de l'État à xam initiative recevoir nit gens pour di wax ak ñoom ñu euh, dialogue pour ñu continuer de waxtaan sortie de crise am solo la crise. kat impact bi mën impacts indi ay yu am yu rëy rëy yàlla ci yàlla musal kon nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baaloo àq ont